ci wàllu jaay ko ak jënd ko ak luye ko muy ku am suufam wala am këram bëgg koo jaay wala koo xam ne dafa luye te am jafe-jafe ci conseil ya nga xam ni ak tegtal yi nga xam ni mën na ko caa am musulaay imo senegal loolu mooy taxawaayam kon képp koo xam ni kii loola yitteel na la bu la neexee nga dem xool chaîne nga abonné ci it nag ndax réew la moo xam ne mi bari na lu fi nit ñi di jànkonteeg xeeti jafe-jafe yooyu wala nga dégg koo xam ni kii mi ngi ci jafe-jafe yooyu ñoom de daañu ànd ak yow gunge la xelal la jàppale la ba jafe-jafe boobu nga xam ni ca nga nekk nga mën caa génn chaîne bi nag loolu mooy turam Mousslaye Imo Sénégal ngeen dem abonné ci numéro téléphone am mooy 77 887 25 13 77 887 25 13 képp koo xam ne kii daal yitteel na la boo fa demee incha allahu daañ la xelal ci la nga wo ñu ñëw nag ci waxtaan wi nga xam ni moo ñu yitteel tey mu jëm ci ñetti tomb tomb bu njëkk bi mooy ñooñu ñu wax ne ay mbër lañu wala boog di yëggatu ci wàllu làmb ñu ne dañ leen a dalal ca palais de la république nga xam ni réew moo xam ni mii nit ñi amuñu jotu liggéey ak i caaxaan rek lañuy ñuy xala nekk yaakaar naa ne ci jamono yi Senghor ci jamono yi Abdou Diouf palais boobu amoon na loolu ñuy wax sacralité mooy xorma ji nga xam ne ji moom la ñuy jox bërëb boo xam ni bii noonu la mel néew ma nag mbër yi duñu ci am droit déedéet néew ma itam du ay nit ñu baax déedéet loolu yëpp duma ko wax parce que xamaluma leen loolu waaye foofa daal yaakaar naa ne waroon nañ faa yóbbu yeneen i problème réew mi yu dul yooyu ndax ñooñu bu ñu nekkee ci problème yaakaar naa ne waroon nañu mën a trouver beneen solution bu dul yoon woowu ñoom dañoo nekk ci seen activité activité bi di jur alal di jur leneen ak leneen kon loola waroon na leen a mën a doy ñu ñu yittewoo askan wi nga xam ni ñoom bu ñu xëyee suba ndekki léeg-léeg dana leen të ñu jël cinq cent millions jox leen cinq cent millions yooyu day defe naa ne bés boo xëyoon suba dox ci mbedd mi da nga gis ay junni junni nit yoo xam ni ci ñoom la gënoon a yell ndax yéen a ngi seetaan réseaux sociaux yi yéen a ngi seetaan télé télévision yi amoon na fi émission boo xam ni benn oustaz defoon na ko fi réew mi li ñu baaxoo mooy di yalwaanal nit ci coonoom ci feebaram ci njàqareem kon cinq cent millions yooyu amoon na feneen fu mu gënoon a jekk gën faa jaadu ñu ñëw ci verdict bi nga xam ni moom ngeen dégg démb ci procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ñu ne yóbbu nañ ko léegi ci juróom weer avec su fekkee ne ne li nga xam ne moom la wax man nag droit bariwuma ci xam-xam ñu ne kon segam Ousmane Sonko daan nañ ko juróom benn weer dootul bokk ci élection yi loolu nag laa yaakaar ne moom gént la goo xam ne gii ki ko def ci xelam moom lay moom day gént ndax nag yaakaar naa ne lu ne mën naa am ci Sénégal gi ba mu des élection yii ñu jëm Ousmane sonk du ci bokk loolu moom yaakaar naa ne gént la gën a nuru bu ngeen ko mënee nag ñi ko ñi nga xam ni ñoom seen wàll euh, ci la jëm nañ dem gëstu ji du ñàkk loi bi dana wax leneen lu dul loolu waaye su fekkee ne loolu la loi bi wax man fu mbir yi jëm moom dalul sama xel dalul sama xel loolu américain di wax nag saa yu ne ma wax ko wait and see ñu ñëw ci waxi Barthélemy Diaz mi nga xam ni moom dem na wuy ji Macky Sall fan yee ci ginnaaw gisoon ngeen mu invité ko ci benn mbir nangam nangam nangam ñu dem fa Macky tàgg ko fa je dirai à ton père que tu travailles defe naa loolu la Ablaye Wade waxoon doomam je dirai à ta maman que tu as bien travaillé kon ironie la gën a nuróol ironie la gën a nuróol itam ironie jëm ci sénégalais yi nga xam ni ñoom xam nañu li xew fi Macky Sall jaar ak Barthélémy Dias jaar faak Khalifa Sall jaar faak Karim Wade te loolu lépp moom Barthélemy mii mu mës taxaw jamono bu nekk di ko wax ñu invité ko fii Pape nga njaay invité ko li may wax yàggagul mu ne il ne mérite pas que may toog ak moom moom moom Macky Sall mérité wul may toog ak moom mu ne ko lu tax mu ne ko il ne mérite pas ma confiance parce qu'il ne respecte pas les Sénégalais mérité wul moom ma koy jox benn cër wala ma koy gëm wala ma koy ànd ak moom ndax moom respecté wul Sénégalais yi mu tegaat ca ni boom quatorze sénégalais amul benn enquête amul benn responsable dali cay tegaat ni loolu mooy sénégalu makki sàll boo xam ni bii dañuy dëkkloo ay opposants fu ñu dëkkul di galgal xalifa sàll nee na kilifa diine yi di wax ak yow nga leen di ñàkkal fayda foofu sax dama fay dugal parenthèse kilifa diine daal su demee ba nitu nguur di ko ñàkkal fayda yaa problème nga ne problème bi est-ce que ci nitu nguur gi la réewandeem xamadeem indisciplinéem wala nitu kilifa diine gi moo ko won doxinu bukki mu yab ko yabinu waxambaane mu mu doxinu waxambaane mu yab ko yabinu bukki loolu dañuy laaj kon ñaar ñooñu ànd kilifa diine gi ba dem ba buur di ko ñàkkal fayda loolu beneen problème la yaa ko wax sa gémmiñ yaa koy lijjanti mu laaj ko ne ko su sollicité woon rencontré la mu tegal ko ci ne ko du am du am jox ko beneen firnde ne ko Khalifa Sall xam na loolu parce que bi nga xamee ne makki Sall ngi ñëw di ko jaale yaayam daf maa woo ma lànk mbokk yi li jara laaj kon mooy ndax moom Macky Sall moomu mu waxoon ne mérité wul muy toog ak moom ndax Macky Sall mu mu waxoon ne mérité wul confiance am xanaa kon Macky Sall mooma day meneen mu mu mu mu fi nekk tey mu bokkul ak mooma. 14 sénégalais yi ñu boomoon xanaa kon dañ cee def enquête ba mu leer ba am ay responsable loolu la defoon lay de ci ñàkk dem gi. ñàkkal fayda googu mu wax ne koy ñàkkal fayda ay opposant di leen dëkkaloo fu ñu dëkkul loola Macky da cee jóge loolu it lu jaral laaj la te ñu ko koy laaj galgal ba mu galgaloon xalifa Sall galgal baa ngi fi ba tey di roppeegu ko ndax xalifa fi mu ne nii ci guddi gu bët setagul la ne rapport yi nga xam ne nag moom la Macky Sall am ak kilifa diine yi Sénégal yépp xam nañ ko waxin wi moo gën a leer mooy makki fi mu teg kilifa diine yi xam nañ ko fii ci Sénégal fi te xalif kilifa diine yi teg Macky sénégalais it xam nañ ko nit ñi dofuñu nelawatu ñun ñi ngi ne jar yeewu di gis kon loolu lu leer nañ la bu ko defee nag ñu toog ba jamono mu dem wuyu ji ko toog na fa wax na fa ay wax bi mu génnee ginnaaw gi sax fa mel na fakktaloo naa benn vidéo boo xam ni ma nga cay xaw a jox xar bi baaraam Ousmane Sonko loola nag seen problème la ñoom yaakaar naa ne boroom bëj dëj bi mën naa jooyub dëjëm kon loolu duma ca wax ki may waxal kay mooy askanu senegal bii nga xam ne bii du tay ci jëkk ci Barthélemy Dias mi bi gën a récent bi gën a teew ci suñu xel mooy Idrissa Seck yàggagul am na yu ko jiitu yu bare yoo xam ni sénégalais yi ñun ñii lañu foowe këll-këllee ñu taxaw wax fii lu tooy xepp ñu toog a toog a toog a toog ba yàgg nga jekki-jekki ka doon wax loolee démb di gesticuler di saaga di menacer di xaste nga xëy benn bés mu yeew buum ci baatam dem jébbal ko kooka mu doon saaga di ko xas di ko menacer waaye yéen sénégalais yi doon naqarlu ba ñuy jàpp nit di ko troxal ngeen ànd ak moom di ko xeexle di ko merle di ko naqarlule ba mu jaral leen sax ngeen taxaw di marche ak i defi sitting kooku ngeen doon défendre xëy benn bés ne leen fa ñukk ne leen fa ñël laaju leen seen xalaat laaju leen seen gis-gis dem ànd ak kooku nga xam ni moo ko doon troxal yéen ngeen koy défendre man de ndokk alhamdulilahi rabbil alamin sama conscience man duma de mukk ci àddina ndax man am na yoo xam ne yii yàlla dimbali na ma ba dama koy xeeñtu balaa agsi bokk na ci moom mii di Barthélemy Dias te yaakaar naa ne samay mbokk am na ci ñu ma ko wax am na ci samay xarit ñu ma ko wax yàgg na nag j'ai jamais eu confiance en lui loolu nag la yàlla dogal parce que man may bëgg nit ku discipliné nit ku yiw nit ku dal koo xam ni kii say raisonnement da nga koy teg ci yoon yaakaar naa ne daaw wala daaw jéeg rek wax na fi kàddu yooyu mi ngi ci vidéo yaa ngi dox te loola xaw naa lëndëmal mbir mi wala boog yokk na lëndëm ci mbir ma ci waxi mandat yooyu kon kooku ku ko wóolu ba topp ànd ak moom xamuloo lu xew yii nag laay bañ ci àndandoo yii laay bañ ci àndandoo ndax ànd ak koo xam ne kii arriviste la yitteem yëpp mooy loolu tubaab di wax celui qui pratique la l'arrivisme qui use de n'importe quel moyen pour s'imposer dans le monde am na ay nitam façon yooyu ay pouvoiriste ñoo xam ne ñi bu ñu xasee ba guux ab lancub nguur dañu mel na ñu dof day yokk c'est dommage pour ce pays ñi nga xam ne ñoo fekkee les années soixante soixante dix ba xëy na sax ci tuuti ci quatre vingt xam nañ ne réew mi nekkatul ci loxo yi mu war a nekk ñi nga xam ne ñoom lañu jox ñuy féetewoo politique bi ñi nga xam ne ñoo yor yenn yor responsabilité yi ku ne xam na ne réew mi moom li fi rëq bari na lool ku xam politiciens yi soixante dix soixante li jiitu li jiitu mooy dañuy nekk ay boroom xam-xam waaye dañuy yaru xam ngeen ci ku ci leen neexee ngeen lim ko ci commentaire yi du jeex du xaaj amal nañu sikk na comme ñëpp parce que politicien moom nu mu mën a mel rek wéyaale ay buubaale waaye au moins ils étaient instruits jàng am nañu yar itam yiw koo ci gis buy wax xel lay waxe xam-xam lay waxe intelligence yu yéeme looloo tax Senghor boole woon leen ca Abdou Diouf boole leen ca mbir mi kay mu nga tàmbalee damme fa ngeen xam boobaak léegi façon nit bu ne ngeen di gis ci politique bi ak ci gouvernement c'est dommage pour le pays ko defee ñu yemale kàddu yi fii ba beneen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.